mandat bi nga xam ne ni moom moo saytu goxi Thiès fii di colonel Aboubacar Koyta ak officier yu mu àndaat ak délégation ñu teewal fi CDS bu senegal ñu ngi lay nuyu di leen wax ne dal leen ak jàmm eh, di ci toftal sin gan ñi nga xam ne ñoo jógee ko Gambia di ki nga xam ne ni moom moo amee wàllu administration arme bu Gambie di Navy Commander Dembo Jaaju di ci toftal ki nga xam ne ni moom moo amee wàllu farmation si armée Gambie di lieutenant colonel Sidi Diouf di ci toftal ki nga xam ne nii moom moo amee wàllu dem ak dikk bi ci fa armée Gambie di Major Mamadou Demba waaye nag di leen wax ne ñun de élèves yi duñ mun a jàll mukk te joxewuñ cant ak ngërëm gu doy ci ki nga xam ne nii moom mooy commandant bu góor mag ñang national training center ñi di ko gën a xamee si capitaine Fallou Tine ñu ngi koy nuyu ak officier yi mu àndaat ak ñi fi teew ñëpp di leen sant di leen gërëm ak arrangement bi ak suñu structures yi nga xam ne nii mosuñoo dëñ di tàyyi di ñu puus di ñu ñaax ngir bés yu mel ni mu mel nii tey ñu ngi lay nuyu di leen sant di leen gërëm di ci teg suma naataango yi nga xam ne ni ñoom laa fi nekkaloon ñu am fi deux mois si training ak mbooleem ku fi teew milieu bi ak ñëpp ah, ñëpp ñu ngi lay nuyu di leen gërëm di leen asalaamaaleykum tàggatu di leen xamal ne keroog biñ fi ñëwee ba tey mu ngi tombé woon ak ñaar fukki fan ci weeri janvier ba bi ñu commencé entraînement bi nu mu waree mu tombé ñaar fukki fan ak juróom ci weeri janvier booba la ñu euh, ñu ngi doonoon juróom fukki élément bi ñu egsee suñ formation bi ñu ko xaajoon si ñeenti groupe groupe yooyu mooy ban chauffeur bi muy conducteur mécanicien bi tireur bi ak chef de groupe sofoor bi li doon li nga xam ne ni moom leen am si ñaari weer yi moo nekk ne masi moto bi ni nga ko war a saytoo ni nga ko war a téye ba nga xam ne nii dina yàgg noyes bu génn ci moto bi nga xam ne noise bii lii la ku la gis nga dawal dina xam ne kii li muy dawal nii xam na ko nekkul di làmbaar mécanicien bi ñu fexe ba heure buñ ne la moto bi nanga ma ko jot di nga xam ne lii la kele bii laay yóbbu lii laay def ku la gis rek dina xam ne mécanicien bi nekkul di làmbaatu waaye xam na li muy def ñu ñëw si gouverneur bi jàng nañ fi ay fetal yu mucc ayib yu mag yoo xam ne ni yu demee ni M60 kaal 50 50 kaal ak yu ci demee yoo xam ne gars yi dañ koy tas di ko defaat di ko defaat ba sooy nelaw sax bu ñu la ee da nga koy defaat ni ko ni ko buggee ñu ñëw si chef de groupe yi ñoom itam jàngal nañ leen ni nga xam ne noonu la war a nekkee seeni soldaar li leen war avant mission li leen war sibiir mission li leen war after mission yëpp ñoom tax xam nañ ko xam bu wér ak li nga xam ne nii noonu leen war a nekkee seeni soldat be lépp loo xam ne loolu leen soxla si mission rek dinañ ko am si jàmm su ko afee ñu wax leen ne suñ structures yi de si njiitali fàllu tiin dëgg dëgg dëgg jox nañu lépp wax nañu lépp amul dara loo xam ne nëbbu nañ ñu ko lépp loo xam ne ni lu ñu war a am la rek jox leen jox nañ ñu ko ñu ngi leen ñu sant di leen gërëm di wax ne ñii de ñu yaatu leen ñu baax leen ndax keroog bi ñu wàccee fii si Thiès li ñu njëkk a wax mooy Sénégal ak Gambie benn la ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kon jàpp na ne wàcc ngeen seen kër waaye ba bési tey ni ñu taxaw nii di wax dara wecceekuwut amul dara loo xam ne wecci nañ ko ci ba tey ñu di leen wax ne dëgg-dëgg seen baax ak seen yaatu jox ngeen ñu lépp xamal ngeen ñu lépp olof nag faral daan wax ne képp kuñ waajalee ndampaay lu duuf naka ndamp yaakaar bu duuf ak lay xaar si kanam maanaam ku ñuy waajal ku ne am na lu tax ñu di la waajal ca kanam waaye nag ñun élèves yi ñu di leen wax ne ah am na ñaar yoo xam ne ji ngeen ñu ko fii jàngal ñu ko waaye design nañ ne ñun duñ yóbbu yëpp de dinañ ko xaaj su ko defee ñu séddoo ko ñaar yooyu mooy lan muy mbokkoog ngeen ñu ji ak taranga ji ji ngeen ñu mbokkoo goo xam ne ak taranga design ne koy xaaj digg bi design ne mbokkoo gi ak taranga gi dañ koy xaaj ci digg bi suñ yóbboo genn wàll gi bàyyi fi geneen wàll gi yéen yéen boo leen toogee fii xam ne seen juróom fukki élèves yi ñëwoon fii si Mont Rolland ji ngeen ne mbokk ak teraanga goo xam ne ñoom de duñ ko fàtte ba faw ndax yóbbu walaay ni genn wàll gi ñun fu ñu toog xam ne sin jàngalekat yu ñu tekki woon Morala ji nañ ñu mbokkoo ak teraanga goo xam ne asiwaale nañ genn wàll gi su ko defee mbokkoo ak teraanga googu law be faw ñu ngi sant instructeurs yi nga xam ne yu xarañ leen yu yaatu leen ñu ngi leen wax jërë ngeen jëf RSM Diassi capitaine Tine ak instructeurs yi ñëpp mboolem ku fi teew rek ñu ngi leen wax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen lance corporal man maa ngi tudd lance corporal Mbaye Ndiaye maa ngi sant di leen gërëm. Monsieur le maire de la commune de Morola, Monsieur le colonel Mbaye Gueye chef de la chaîne emploi de l'état-major de l'armée de terre. Monsieur le colonel Demba directeur de l'administration et du personnel des forces armées gambiennes. Monsieur le lieutenant-colonel Abdoulaye Diop, chef de division formation à l'état-major de l'armée de terre. le colonel Mathieu d'entraînement tactique, capitaine Beydier. Monsieur le commandant Ibrahim Sissé, représentant de la direction du matériel. Monsieur le lieutenant-colonel Sidi Diouf, chef de l'entraînement des forces armées gambiennes. Monsieur le capitaine Tin Falloutine, chef du centre d'entraînement national Morolan, capitaine Gormagnan. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir et une fierté légitime que je viens au nom du général d'armée aérienne Biram Diop, chef d'état-major général des armées, présider la cérémonie de fin de formation des militaires gambiens sur les véhicules blindés de combat de l'infanterie. Uh, officers, ladies gentlemen, ladies and gentlemen, honorable guests. It's a great pleasure and rightful proudness that I'm here. On behalf of the Brigadier General, Chief of Staff of the Grand Army, to chase the graduation ceremony that shows the end of the Permettez-moi avant tout de vous souhaiter la bienvenue au niveau de la zone militaire numéro et plus particulièrement au centre d'entraînement national Capitaine Gourmagna où s'est déroulée cette première édition. Please allow me to welcome, welcome you to the seven uh, training center and particularly to uh, l'évidence, l'organisation de cette formation au profit des frères d'armes gambiens constitue sans nul doute une étape décisive dans la consolidation de la coopération militaire entre le Sénégal et la Gambie. first edition organized at the Captain uh, Gomagna National Training Center is without doubt a decisive aspect in the consolidation of the military cooperation between Senegal and the Gambia. En effet, après un bref rappel des volets et du bilan de la formation, je vais saisir cette opportunité pour adresser quelques mots à nos chers stagiaires gambiens qui, vont tout à, qui ont déjà reçu leur diplôme dans ce centre. This, uh, thus, after to our government trainees who has already received their diplomas. Mesdames, Messieurs, d'une durée de deux mois, cette formation qui a débuté le 20 janvier 2021 a donné un bilan très satisfaisant. En effet,

Eh, ne me reste plus qu'à déclarer au nom du général d'armée aérienne Biram Diop, chef d'état-major général des armées, close la formation sur les véhicules blindés de combat d'infanterie au profit des militaires des forces armées gambiennes. Et à vous souhaiter un bon voyage, un bon retour dans vos foyers. declare close uh, the, the training on behalf of the chief of uh, staff. And I wish you a good trip. May God accompany you back home. Que le bon Dieu préserve les peuples de Gambie et du Sénégal. Vive la fraternité d'armes entre nos deux May God preserve the Senegalese and Gambian people. Ah. officiers euh, gambiens. All of us have an obligation to do more to keep the peace at home. Donc, euh, tout monde a l'obligation de, de faire plus. We remain key players in this peace sustenance efforts within the Gambia, the region and Africa and beyond. On a final note, I would like to take this opportunity to thank. Donc, pour uh, For the CDS for not only endorsing this training. Uh, seulement par ceux qui sont dans cette formation. As proposed by the training office. Donc, comme euh, par euh, euh, le bureau de formation. but for also providing us with the necessary logistics support. Donc euh, euh, de, leur euh, provision, de nous, de dans nos engagements. And coordination with our Senegalese counterpart throughout the course. I cannot therefore conclude without recognizing the effort of both the directors of training and doctrine. Donc, euh, je ne peux terminer euh, sans reconnaître la doctrine. Both in the Gambia and Senegalese armed forces. Euh, For their invaluable support to make this training a reality. Donc, les efforts qu'ils ont fait pour faire cet entraînement-là au Sénégal. I will end without thanking the officer in charge of the training school here, uh, Captain Tin. le chef du centre, le And his competent officers and gallant men. Et aussi euh, tout training our personnel to this professional level. Donc, euh, d'entraîner euh, personnel à ce niveau de I can take the whole day to talk about how we appreciate this training that is offered to us. And this is not the only training that we are benefiting from the Senegalese armed forces. Euh, le seul entraînement que nous bénéficions euh, euh, des, for des, sénégalaises. Recently, of our presidential guards were trained in Senegal here. Recently, of our state guard personnel were trained in Senegal here. Donc, on a éléments euh, déjà ici au Sénégal. And we have some officers here doing officer military training courses in various académiciens in Sénégal. Donc on a aussi des élèves officiers dans les écoles d'officiers ici au Sénégal. So for one of time, let me just thank the Senegalese armed forces for the support we are receiving from them. Donc euh, laissez-moi remercier les forces armées sénégalaises euh, du soutien que nous recevons d'elles. the Republic of Senegal, long live the Republic of the Gambia.